aouzu billahi mina sheytaani rajim inna waliyallahu ma tawfiqa illa billah mbokk yi salaamaaleykum ñu di nuyu mbokk yi seen site internet bi di 24 actu ñu di nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen baalu àq di ko sàkku ci yéen ji jiite suñum nuyoo ak suñu siyaar euh, cheikh mouhamadou mountaxa ibnu cheikh mouhamadul bachir ibnu cheikhina cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul euh, di ko ñaanal suñu borom ay ba mottali ay naalam ak yéenam ci jotaay gis suñu jotaay euh, ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi Darou Khoudous euh, Darou Khoudous bu ñu ko xel yëpp dem ci fi nga xam ne moom mooy bayti ndax fi la euh, bagage yi nga xam ne moom la ku tedd ka Serigne Touba Khadimu Rasul demee woon ci tukkeem bu sari boobee fii la nekk ci Darou Khoudous Darou Khoudous nag nekk bërëb xam ne Serigne Touba Khadimu Rasul moom moo ko sancaloon boppam am fi nag diirub lu toll ci juróomi at waaye nag nekk kër goo xam ne dañ ko tuddee woon këru xaadimu rasul daan wéetalee ki nga xam ne mooy suñu borom subhanahu wa taala bu ngeen bëggee xam daaru xudus kañ la ko sëriñ Touba xaadimu rasul sanc ak histoire yaatu yi nga xam ne jot naa am ci daaru xudus ak bagage yi sëñ bi nga xam ne fi lañ ko denc da ngeen ñuy topp ñu ànd ak suñu waajur wu sell di sëriñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan di borom xam bu mag waaye di koo xamante ni maîtriser na lool histoire daaru xudus ñu fas yéene am ak moom jotaay bu yaatu mu leeralal ñu euh, li nga xam ne moom moo jot euh, xew daaru xudus ak kañ la ko sëriñ Touba xaadimu rasul euh, sanc Modou Diouf da nga may topp ñu daal di dugg ci biir euh, seet suñu waajur suñu Ahmadou Ndiaye Nguirane mu leeral ñu lenn ci histoire Daaru Xudoos mbokk yi jërë ngeen jëf ginnaaw bi ñu leen nuyuwaatee euh, ziar leen mbokk yi nga xam ne yéen ngi bàyyi xel site internet bi di 24 actu euh, ñoo leen ko digoon ñi ngi ci yoonu màggal gi comme ni leen ko waxee woon yoonu màggal gi nekk jotaay boo xam ne jotaay bu yaatu lay nekk macha allah dinañ topp dëkk yi nga xamante ni ku tedd ki Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sancoon na ko wala sanc woon na ko wala ñenn ci ay taalibeem sancoon nañ ko ñu def ab bu yaatu lépp rek bégalee leen leen ci xam-xam boo xam ne mën nañ ne murid yi wala taalibe am na si ñoo xam ne xamuñu ko woon lépp rek ngir waajale ko 18 safar bi nga xam ne moom la ñu dëdmal nga xam ne mooy bis bi nga xam ne Serigne Touba Khadimou Rasoul dafa ndax moo ko sancoon waaye tamit amoon fi juróomi at lépp rek ngi daan fi wéetal suñu borom subhanahu wa taala ki ngeen feegool nag ci jataay bi di Serigne Ahmadou Ndiaye Ngiraan bokk ci ñi nga xamante ni mën nañ ne euh, miin nañ lool euh, histoire Daarul Xuddus ñuy dugg ci euh, jotaay bi ak yaatal geek faramfàcce gi ñu bàyyi suñu waajur mu nuyoo ak ñi koy topp ci site bii di 24 actu suñu Ahmed maa ngi lay nuyu. ñu ngi nuyu bokki jullit yi bokki talibe yi jiital ci nuyoo bi kilifa yoon wi ak Cheikh Mouhamadul Mountakha di nuyu bu baax jëwriñam ji ko nekkal fii di sëriñ Ahmadul Mokhtar di ñaan suñu borom mu yokk seenu fan te may leen ak wér. li ñu yéene liggéey ci yoon wi suñu borom def ci lu kawe njort di nuyu mboolem mbokki jullit yi mbokki talibe yi ci biir réew mi ak ci bitti. jërëjëf euh, sëriñ Ahmad Ndiaye Nguirane macha allah ci ni bu am solo boobu euh, sëñ Ahmad ñu nekk fii ci euh, Daaral Xudduus bu ñu bëggoon a xam sëñ bi ci man at la sëñ ci Daaral Xudduus. auzu billahi mina shaytaani bismillahi rahmaani rahim barakat Cheikhul Xadim nekk ci wàccaayu. màggalu 18 safar muy bis bu am solo ci yoonu murit bis bu am solo itam ci taarixul islam rawatina fii ci senegal bokk ci wàccaayu bis yi xañtu mboorum sëriñ bi muy lenn ci ay barabam lenn ci ay jaar-jaaram ngir labirante ak bokki talibe ñu tuddee 18 safar nag mëneesu la ñàkk tudd këru daarul xuddos muy barab boo xamante ne ni sëriñ bi moo ko sancal boppam ci mille 1890 ginnaaw bu mu sancee fee mu tëdd tey di Touba ñaari at la ca teg sanc fii Touba mi ngi ko sanc 1888 sanc kër gi ci 1890 ba 1895 li ëpp ci ay jataayam fii la koy nekk noonu la sancee kër sëñ Chouaïbou muy Daaru Rahman noonu la sancee itam fee Cheikh Mouhamadul Basir dëkk muy Daarul Minnan muy ay kër yoo xamante ne ni waxtu ci nekk daf koy baagante diggam ak boromam fii nag Daarul Xuddus li rabbil alamina mursilu ahmada moom la ko tudde woon mag ñi daan ko wax kër yàlla ndax këru weetaay bayti ab néeg la bu ne ci biir ñenn ñi leen ni baytul izza la ko tudde ñenn ñi ne baytul xalwa waaye dafa dem ba turu néeg bi nangu turu kër gi boo ne bayti kër gépp la ñuy bayti waaye ab néeg la ci biir boo ne daaru xuddos ñu ni quartier bi waaye kër gi la tudde woon daaru xuddos quartier bi nag moo nangu turu kër gi kër gi nangu turu néeg bi mu doon it kër goo xamante ne ni fii la waaje wàccaay wi mu demee ci géej gi fii la ko waaje ci xalawaat yi mu daan def muy wéet diggam ak boroomam ba ci kooruk bay sasin muy 1312 moom nag ni mu aadoo woon koor mooy fukki fan yi mujj ci weeru koor li itikaaf lay def mooy ca jàkka ja lay féete bu ca biir bu duggee ci jàkka ji itam sëriñ Daaru Xasan Njaay moo daan jiite fii ci kër gi jàkk jooju mooy jàkkay sëñ Tuubaa sëñ bi fu mu mësa rëdd jàkk la fa jëkk rëdd door a rëdd nekk ci jàkk jooju yi la doon tëju jullee waxtu yu juróom lentikaafu bay sa sin 1312 ci biir jàkk jooju yi la ko defe mooy fukki fan yi mujj ci weeru koor ci biir jàkk ji lay ubbu kenn du ko gis jaamu yàlla rekk la fay nekk ba keroog ñu naan weer feeñ na buñ ne weeri feeñ na ca bisu kori ga ca yoor yoor buy dem ci jullikaay ba ubbi dem ci jullikaay ba fukki fan yooyu yi mujj nag ci la gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ahlu badrin ci barab boob yi jàkk ji biir jàkk jooju yi yonent bi ñëw na fi ak ahlu badrin te sëriñ bi dañu ayyaanan maam du ay nelaw bëtam la leen gise waaye bay na xijaabin raqiq la wax nee na rido lu mel ni rido bu woyof moo dox seen diggante moom mi ngi leen di gis waaye nee na mënu koo jox loxo mi ngi gis yonent bi ànd ak ahlu badrin waaye mënu koo jox loxo ndax loolu yi dox seen diggante nee na booba nag waxante na fa ak soppeem boobu yi di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ fa waqante mooy la taxoon yonent bi jóg mooy sëriñ bi fi mu toll ak cofeel ci yonent bi ak fi mu toll ci yitte ju kawe tax na yonent bi feeñu ko ci waxtu woowu yi ndax dégg nañu ab nettali ci doomam Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mu ni booba ñeen fukki des na ñetti weer te ak xutbaani ya ku amul ñeen fukki at la ko jox nee na yonent bi wax ko ni ko ñetti weer yooyu danaa la ko mottalil bu ko defee njox la dara jooy xutbaan ya waaye sëñ bi ak yitteem ju kawe loolu taxu ko jóg dara jooju li muy rëy rëy xeeb na ko la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñii ànd ak yow te deetuñu tàggoo ak yow muy ahlu badrin ci la bëgg a bokk yonent bi xamal ko ni ko loolu faat na ndax ñii dañoo tuuroon seen deret ci lislaam ca jamono ba mu koy soxla muy ca badar waaye teewul rekk sëñ bi insisté ci yitteem ju kawe ak farloom ndax sëñ bi liggéey bi mu sumb résultat bi liggéey ba mooy ram mu aw xeet an akuna saafian li xaw mi kon liggéey la boo xamante ni bu diis sa diis la ba ca taxawee nag ci dëgër ci yonent bi ni ko mën naa ne waaye nag sart mooy day am njëg njëkk nag la ca mën a juddoo yéenewuma la ko moo tax ma bëgg jox la xutbaan yi sëñ bi xamal ni ko ni moom lu ca mën a ne ruu gi daal mooma wóorut ndax binduma ko su ma wóoree ni sama ruu du ca des li ci des sama jom àttan na ko ak sama fit yonent bi xamal ne ko ñaar téeméeri nattu la ak juróom-ñett fukk ak juróom sëñ Moussa Ka dana wax ni limub sóoratul awaami lañ ko teg ci ay nattu bàqara ñaar téeméeri aaya la ak juróom-ñett fukk ak juróom te benn bu ci nekk sa génnuk ru xaj na ci te bu fekkent ni danga salit danga ñàkk boo duggee ba ci biir nga génn mën nga caa alko te loolu yéenewuma la waaye sëriñ bi feeñal ci ak bëggam loolu nag danañ ci jànge yitte ju kaw kawe ci sëriñ bi ndax bu ñu delluwaatooy gannaaw rek gis ni ca Mbàkke Kajoor ba muy woote dani suñ borom moo ko ni rabbi asaabaka bil himma himma nag mooy fexe ba sa yitte kawe sa diggante ak sa boroom te loolu mooy cër yu yaru xol bu yànj yitte ju kawe sa digg ak sa borom loolu la Sëriñ Tuubaa indi loolu la woote loolu dafay feeñ ci jataay bii ndax mbooloo moo xam ne bañ fi jaare jaare ñaari at ca gàddaay ga lañ fi jaaroon ba jàll te mbooloo moomee boroom xam-xam yëpp d'accord nañ ni fas yañ doon war pour it may génn ci gimiñu fas ya moo gën a foor jëfi wàlliyu kamaal moom mu ni ca ñooñu la bëgg a bokk groupe boobu la bëgg a dabi ñu jaaroon fa ci ñaareelu at ba ca gàddaay ga mu toog ba 1312 mu laxasaayu ni ñooñ la bëgg a dabi loolu ku ne xam na ni yitte féetewu ko kaw daanaka junni at ak ñett téeméer ak fukk dox seen diggante loolu taalibe yi war nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ci sunu yitte sunu diggante ak sunu borom nga gis ni itam ni kooki muy waxal nga xam ni nee na gis na ko ay yaanoon ba mu ba mu génnee àdduna ak boobu ko sëñ bi di gis booba itam distance bi sori na lool. ndax fukki at ak benn ca gàddaay ga la dem sëñ bi toog ba 1312 nga xam ni junni at ak ñetti téeméer ak benn dox na seen diggante waaye da dégg ci waxam mu ni saafahani nga xam ni tuñ ak tuñ la wala axbarani nii sallallahu alayhi wasallam nga xam ni wóor na mi ngi gis ki mi waxal wala salli wa sallim alal mukallim damir bi mu xaata xaataba la <laughs> man mel ni mi ngi jàkkaarloo kon ki muy waxal loolu yitte ju kawe la yitte la lool loolu danga ci xame yitte sëriñ bi mu xamal ko nag ni ko loolu yi nga bëgg léegi loolu moo la koy may waaye ci kaw nag dëkk bi da koy génn ndax dëkk bi keroog ba mu koy sañc sanc xasida gam ko doon sanc muy matlawul faw sëy ni mboolem lu mu ca ñaanoon suñu borom may na ko moo tax yonent bi ni ko dara ci loraange li feeg yaa ngi ci biir dëkk bi loolu du la dal kon dafay daal di obligé pour mu génn dëkk bi loolu itam da nga ci xamee fitu sëriñ bi ndax koo mos a gis mu gàddaay dañ ko toñ toñal ci barab xañ ko jàmm mu dem wuti fu mu amee ji jàmm sëñ bi moom bàyyi fi mu amee jàmm nga xam ne dara du ko fi xusee dem ci foo xamante ne ni ay nattu ak i musiba dong la fay xar yoo xam ne bakkanam mar na caa mën a xaj loolu borom fit koy def borom jamoo koy def looloo tax ba waree rek la daal di génn takk ay bagaasam ndax sart bi mooy day génn dëkk bi baneen bi ci des mooy nijaayam yi bokk ak soxna jaara di sëñ bu soobe am na lijaaba te buñ ko tegee natt bi ci kanamam mu fekke ko su mettee day ñaan suñu borom mu teggi ko te kon liggéey bi du àgg sëñ bi ñaan lijaayam jooju wàcc ab liggéey ca tabaski ga fukki fan ak juróom-ñaar ca tabaski ga la sëñ bu soobe wàcc ab liggéey sëñ bi jaar fi dem jaale ji ko delluwaatee ci 18 safar ja ca la engagé liggéey bi tàmbali moom lépp ci biir jàkka ji la ame mu doon barab bu bu symbolisé boo xamante ni Serigne màddina Madina moo ko moo ko tabax def ko nii ndax booba jamono jàkkoy sekkat mooy waaye ginnaaw boo xamante ni nii nag suñ borom dogal na Serigne Mbacke Madina wóotu fi Cheikh Mouhamadul Moustapha euh, la tabax jàkk ji ginnaaw bi Serigne Ahmadou moo ko yeesalaat ba mel nii waaye li xew lépp fii la xewee fii ci biir jàkk ji la xewe day wax ne rek moom sëriñ bi fii la waaje woon bi mu ñëw bi mu demee ba ñëwit fii la sippiwaati bagaasam moom fii la takkeek laxasaay dem mbàkke bari eh, fenqoog tubaab bi ñu jël ko yóbbu mu dem ndar ginnaaw bu mu ñibbisee ay weer yu néew la am ci réew mi ñu yóbbu ko Mauritanie Mauritanie am na fa daanaka lu mat juróomi at ndax 1903 la fa dem ba 1907 joge fa yóbbu ko Ceen Jolof moom it ndax 1907 la fa nekk ba 1912 muy juróomi at ñu jële ko fa door ko yóbbu njaareem mu am fa 15 ans bi mu ñibbisee nag nga xam ni jóge na ci géej gi bagages yi mu indaaloon ànd ak moom di dox ndax bi mu ñibbisee rek sànna lañ ko yóbbu sànn la demal boppam ci coobaree boppam am fa weer bi mu fa jógee gannaaw bi lay dox ci réew mi ba àgg Daaru Salaam mu jógee Daaru Salaam la dem Daarul Mannaan te fekk sancoloo woon na ko boroom daaru bi muy waaj a ñëw yóbbu fa bagage boo demee ci biir néeg bi danga fa fekk ay gaal yoo xamante nii moom lu yóbbaale woon ci ci géej gi wax gaal géej gi moom mooy gaal goo gis mu am benn jàpp ci kaw mooy yi demoon ci géej gi ndax moo ko doon fobal boppam bu am ñaari jàpp dañ ko jàpp waaye bu am jàpp benn jàpp ci kaw moom moo ko doon fobal boppam muy ay ay bagaasam yaa ngi ca gis itam gaal goo xamante ne ni boo xoolee ca kaw am na bën bën te mooy jamono yi mbaaxaan di seet si kërug Daaru Marnaan gi mooy biñ ko tuumaalee nii daa jënd ay ngànnaay ngir day waajal xare tax euh, tubaab yi ñëw ca kër ga di visiter kër ga di gëstu te booba itam euh, kër yi di ay kër yi sàkket yoo xam ne léeg-léeg jàpp da ko yomb foofu nga te ngay gis ni sëriñ bi xel mi jiitu na jamono ndax lu tax mu def ko gaali weñ mooy toujours léeg-léeg kër gi daan lakk te bu lakkee bu dee gaal yi dénk yi téere yi day lakkaale mu def ko gaali weñ léeg-léeg itam mu tolloon ci buy bëgg a jóg ay gas ba mu xóot mu jël gaal yi wodde ko ay perkaal suul ko ci suuf looloo tax itam léegi gaa yi déwee dóor ci xeej bi mu mu bënn ngir ñu xool ba xam ngànnaay yi ci nekk wala ngànnaay néewu ci bagage yooyu moom lañ indiwaat fii màndargaal ko mu bokk ci ay bagaasam yoo xamante ne nii ci jumtukaay yi mu doon liggéey la bokk. bagages yi bi muy jóge ci géej moom moo indaale ay bagaasam tubaab yi nañ ko yóbboo na nekk bagaasam noonu lañ ko boole ak i andi bagages yi nag toujours taalibe bi ñoo ko daan yenu waaw parce que ay gaal la yoo xamante ne nii fu muy dem taalibe bi ñoo ko yanu yóbbu su fekkente ne nii amut waruwaay boo xamante ne nii moo fa jëm te booba fas lay war sareet xewut kon taalibe yi ñoo ko yanu topp ci moom ba fuñ ko tegloo mu tegloo fa am na ci bagage yoo xamante nag bi mu fi jaaree jëm njaareem la waxoon sëñ Mor na ni ko téyal ma ko ba àllarba sëñ Mor Soxna Diop ci mag ñi nga xamante ni ñoo ko toppoon la moom it àllarba jot mu defee ni àllarba ji la sëñ bi doon ba keroog àllarba ji mu fi financé ci guddi moo tax bañ ko dencee ba pare sëñ Moussa ni sëñ Mor Soxna moo war a yor bagage bi moo war yor barab bi ndax moom la sëñ bi dénkoon bagaas yi ni ko téyal ma ko ba àllarba àllarba jot ñu defe ni àllarba jooju la fukki at ak juróom mu toog fi di xaar ba keroog bi mu wàccee ab liggéey talaata guddi àllarba ñu indi ko fi moo taxoon moo jëkk a yor barabu Seexul Xadim tukki la boo xamante ne ni tukki boo am solo la ginnaaw boo xamante ne ni ñibbisi na nag ba ñëw njaareem toog na fa ab diir waaye mu wax ni nattu yi ko sun boroom doon teg ci 18 safar jooj yi ndax njëg la gu rëy goo xamante ne ni li mu soxla loolu la laaj saa yu 18 safar dellusiwaatee dañuy ful nattu yàlla du caagi ni lim ba la ñuy ful waaye mettitul nattu ya la ñuy yokk ba mu gën a diis ñu teg ko ba ci jeexital bi ci tal Talsasin muy 1339 ci gàddaay gi dëppoo ak vingt 1922 am na sax ñeneen ñu wax yeneen dat ñeen ñi wax nañ 1921 ñenn ñi wax 18 waaye histoire moo baaxoo wuute la xëy di waajal nattu bi heure ba mu ko daan dikkal ca la ko suñ borom xamale ni ko lépp jeex na léegi ak pay rek ngay gis ba keroog ngay tàbbi sa këru àjjal mu wax nag ni bis boobu yi képp koo xamante ni nii mbégam sa mbég la na ko ci sant la yàlla sa borom ndax moom kat suñu boroom defal na ko ci loo xam ne cantuk boppam ci làmmiñam tuut na ci xeeb na ko moo tax mu ni képp koo xamante ne ni sama mbég sa mbég la nag ma ci sant la suñu borom digaloon ko taalibe yi te waxoon nag li tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem lu ci waay am loolu mooy bul xeeb bul yéem ndax waxoon ni tabaski bi sub yonent yàlla ibrahima la asura yonent yu bari ñoo ci am wàll mu ne waaye yéen bis bii mooy seen bis lu ma am sama diggante ak suma boroom ci laa ko am yéen itam lu ngeen am mbaa nu ngeen mel ci bis boobu moo tax ngeen mel wax ni bis sax amul àjjana waaye suñ fa demee bu 18 safar dikkee sun borom dana soppi àjjana neexitoo ba ñëpp xam ne tey jël sama bis la loolu lu am solo la. mooy ginnaaw boo xamante ni nii def na. fukki at ak juróom ci njaareem yoo xamante ne ni génn ko ba suñ boroom dikk ak coobareem mooy la tubaab yoo doon jéem muta taxoon ñu génne ko sun boroom dikkee na ak coobareem Cheikh Mouhamadul Moustapha ñëw fekk ko ci melokaan woowee ku mu ko fekke te mu digaloon ko nag ni ko naa dem Tuuba te bu xat damm ni ko su ma demee Touba lu ngeen tàmbalee te danaa ko àggale waaye su ngeen lijjantee ba dem ma Touba dana mel ni demaluma leen woon fenn te keroog ba muy ci dëkk bi la waxoon ni wàccal ilaahi maskan yi Touba abat na nga def Touba muy sama dëkkuwaay ba faaw yàlla dogal mu génn ko 1895 ba 1927 suñ Touba tegatu tànkam ci suufus Touba kon keroog boobu bii mu fi waree mën a ñëw moom mënalu ko boppam dañ ko koy defal kim ko dénkoon nag njàmbaar gam ca def. ba ba li ko sëñ bi santoon mu def ko ndax dañ ko naa dem Touba te bu xat damm muy ñëw na Touba te xat dam dammut coow amut xëccoo amut ku ca wër sa yoon wër nekk sa yoon nekku ca bañ defal ko ak bëggam guddi googee la sëñ Moussa wax ni juboo ak suñ borom ci képp ku fi fanaan suñ borom jéggal la say bàkkaar muy guddi googu yi sëñ Touba ñëwee guddi googu itam la wax ni sëriñ bi bi muy ñëw mboolem fu nit ku baax nekk te amub cër ci suñ borom gunge nga ko ànd nga ak moom gunge ko mu tàbbi ci këram googu yi ñooñu la wax ni saa yu guddi googu yi dellusiwaatee Tuubaa la ñuy fanaan si ku fi fanaan ak ñoom suñu borom dana la jéggal say bàkkaar moo taxoon mu doon ko woone at mu jot ni nañ fii daje di fàttaliku ëllëg yomal xiyam sunu bis penc ba kanamu suñu borom nañ fiy daje di fàttaliku ndigali suñu borom yi ndax boobu communication demewul ni te mbooloo mi daje mu fàttali leen li leen yàlla sant fàttali leen seen digg ak sëñ Tuubaa mi ñu topp fàttali leen tam ndigal yi fi sëñ bi bàyyi te boobu liggéey bi jumaa ji la moo taxoon mu di ko woote waaye mun leen woon nag na doon ci jàng alxuraan jàng xasida def istixfaar salaatu ala nabi bernde boroom xam-xam yi laa biire ñu xamut woy woomal yi dimbali néew ji dool yi ñu jokk fi ak bokk bu ñu xëyee delluwaat ci yitte ginnaaw Seex Muhammadul Mustafaa nag sëriñ Seex wóotu ko mag ci ak njabootam taxawaay bi mu ci taxaw moo tax ñu naan màggaluk sëñ Cheikh ndax dafa am jamono daa benn contexte boo xamante ni ci 1946 màggal dafa tase ak ay élection te boobu tubaab yi ñoo yor at tëb réew léegi tubaab yi ni màggal gi dañ koy renvoyé parce que élection yi moo tax te ñoom sécurité màggal gi mënuñu ko jël boole kook élection yi sëñ Cheikh taxaw ca ni leen bis bi du bis bu ñuy fomm moom ñiy wata ji nañ wata ji ñiy màggali màggali taxawaay boobu mu ca taxaw nag bañ xëqante ci ak gouverneur général taxawoon na ñu naan màggalu màggalu sëñ Cheikh ndax ginnaaw waajuram nekkatu fi te ki wóotu li ko war mooy sàmm lim fi fekk te moom taxaw na ci teg ci bakkanam ci bis bi di su ko ak lu mën a xew danañ ko màggal ak condition yu ñu ko mën a màggale loolu itam tax na ñi mu maaseel jamono tudde ko màggaluk sëñ Cheikh ne ñenn ñi màggaluk Daaru Xuddoos la ñuy wax ndax daaru xuddoos lañ koy defee waaye du caage ni daaru xuddoos ñoo ko moom Touba lañ koy defee waaye sëñ Touba lañ koy defal ñenn ñi màggaluk sëñ Cheikh lañ koy tuddee ndax sëñ Cheikh jamonoom ni mu feesee ak ni mu marqué jamonoom tax na ñu moomale ko ko waaye bis bi sëñ Touba ko moom sëñ Touba lañ koy defal mooy guddi gi sëñ Touba jógee njaareem ñu jëlee ko fa indi ko fii mu tëdd tey ci jumaa ji guddi googu la ñuy màgg. waaw kër gi moom ginnaaw bu sëñ bi génnee àdduna sëñ Moussa moo ko sanc yeesalaat ko. waaw yeesalaat ko kees yi fenn fu ci nekk la fa newoon ñu delloowaat ko fa kër gi bi sëñ Cheikh Mbacke di loti si dëkk bi ci 1960 la ko wàññi waaye kër gi ëppoon na li ndax jàkk ji daa ambale kër gi jàkk ji mbaar mi lépp ci biir kër gi la newoon doon barab boo xamante ne ni sëñ bi dëkkaloo fu woon kenn lu dul ba bëkk néeg yi nga xamante ni ñoo yoroon kër gi di ko saytu moom yu jamono yi yi yi fi sëñ bi nekk moom moom moo moo moo fi féetal boppam booba itam dana ci am mag ñuy jaxasoog moom eh, di fi ñëw waaye exact ci man mag loolu loxoom nekkoon ci kër gi boobu moom du neex xam ndax bi mu fi nekk moom Cerno Biraay mooy loxol ndeyjooram borom darul mawti booba mooy mooy bras sëñ bi sax wax na ko ni odadul ay man mooy sama bras droit <laughs> mooy mooy mooy Cerno Biraay waaye kër gi moom mag moom fi mu sowane sëñ Daaru Asan nag daan na fi ne di ko jiiteel kër gi làkku kër gi itam santoon nag ko ay jamono yoo xam ne moom moo moo ko làkk mag ñi kenn ku ne takk fi mu nekk Cheikh Ibra Fall na fi mu nekk sëñ Ndindi takkoon na fi ab nekk naka noonu yi sëñ Daaru moom yi takkoon na fi mu nekk ba léegi njabootuk sëñ Daaru Asan ñoo yor saytub kër gi ndax wala woowee nga xamante ni moom la sëñ bi sosoon ba léegi jamono même muy foofu ngeen jóge ci néeg bi ka ne ñoom ñoo ko fa teg di sëñ Daam Njaay noonu noonu la doon demee ginnaaw bu sëñ Moussa génnee àdduna nag sëñ a mag ci njabootam moo ko moo ko toogee ginnaaw bu sëñ Cheikh wàccee sëñ Mbàkke màddina kër gi nekk na ci loxoom bâtiment yi fii nii nag moo ko fi jëmmal ginnaaw bi Serigne Mahmadan Xarilo fa tabaarakalla yàggu fi diggante bu gàtt la fi nekk ginnaaw bi Serigne Aliou Mbàkke nekk fi nekkal fi Cheikh Mouhamadul Moustapha ginnaaw bi sëriñ Xaadim nga xamante ni moom itam nekk na fi ab diir ba léegi sëriñ Ahmadul Muxtaar moo fi nekk ñaan suñu borom wannu kéemaanu gudd fan ci jëmmam moo fi des itam ci njabootu si am Muhammadul Moustapha wu góor gi moom kër gi ci loxoom la nekk waaye kër gi moom barabub sëñ Tuubaa gentub sëñ Tuubaa la buñ di dëkkee waaw li ci des de moom kàddu yi sant la rek di leen sant bu baax di ñaan suñu borom dëgëral seeni taxawaay ba li ngeen ci jublu suñu borom defal leen ci lu kawe seen jot barakat Cheikh Khadim waaye di soññ bokki taalibe bi itam ñu gën a xañtu jaar-jaari sëñ bi parce que dana tax nu gën koo naw dana tax nu gën koo bëgg ndax sëñ bi dundam gépp ak jafe-jafe la dundam gépp dara seddu ci lépp te suñ jëm yi rek taxoon kon war nañ koo sagale sax ci ak jub te nangoo jaamu yàlla war nañ koo sagale boole suñu bopp te nangoo dimbalante ndax daana wax ni képp koo xam ne dees na la tudd di ma tudd yaa xam loo mën a doon ci man te su nit jógoon di ma seet su yamee ci yow duma ko jaral agsi ndax soo melokaat sëñ bi nee na doo jéggi siraat mukk te layoo wuñ ko maag yow te boo gisee comportement yi nit ñu yor léegi ak li ñuy génne ci seen làmmiñ yi di ko wax ak li ñuy jëf méngowul ak njullit waxantuma ak sax ab taalibe sëñ Tuubaa bari na fu ñuy daale ci kaw sëñ bi te lépp suñ jëmm yu xeeb yi rek a tax waaye sëñ bi moom yëbuwut loolu nag ñàkk giñ ko ñàkk xam rek ko waral moo tax nu war a jéem a gëstu ay bëgg-bëggam ne sëñ bi moom su koo xam yàlla yomal xiyam rek lay leer ci kanamu suñu borom waaye li mu bëgg moom yomb naa xam ndax ci téere yi la ko def mooy nan delluwaat ci téere yi yër ko mag fu mu nekkul ay waxam ma ko fa nekkal bu ko defee ñu moytu xisa yu bare bari bàyyi diw nee na góor gu baax nee na ak yooyu yëpp dañ koy moytandikoo te sëgg ci mbind mi mbind moom ñëpp xam nañ ci moom la bàyyi ko li mu ci wax loolu dara du ko dindi ci àdduna ñu jëm caa teg suñu tànk te la def ci mbind mi rek mooy nu sax ci jaamu yàlla te teg ko ci sunna te moytandikoo uh, bàkkaar nit ki bu bàyyee tooñ yàlla rek lu mu def rek avantage la ci moom parce que ginnaaw ay balance la rek balance bi teg lu bon moom boo ca tegut dara bee ci des loo ca teg rek mu daanu loo ca teg lu mu tuut rek mu daanu ndax <laughs> bi war a teg beneen bi ci des ko war a opposé wu dara newu ci kon bi ci des loo ci teg mu nu lu baax ci sant yàlla bu baax yal na suñu borom boole dimbali boole leen taxaw wasalaamualeykum wa rahmatullah macha allah sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguirane euh, gis ngeen ko noonu ci yaatal yu am solo yooyu ak leeral yu am solo yooyu macha allah moom lañu bokkaloon àndaloon ak moom jotaay bi ñu tuddee woon jàpp naa ci gëru boppam waaye tamit amoon fi ab diir rek ngir daan fi wéetal suñu borom subhanahu wa taala ba ku ne xam na ne jàkk gi nga xamante moom moo janoo ak kër gi fi la gisee woon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ahlul badari lépp nekk ci fukki fan weeru koor yi nga xam ne moom moo ci lépp daan ko def ci ak intikaaf euh, leeral na ko kon ñaanal fan bu gudd ak wér lépp loo xam ne bëgg na koo liggéey ci yoonu murid wi yoonu Cheikh naa Cheikh Ahmadou suñu borom defal ko ci lu kawe waaye itam di ñaanal xalif général euh, sëriñ Muntaxa Bachir Mbacké suñu borom gën ko fee kattanal ba mottali ay naalam ak yéeneem euh, ci liggéeyub Xaadimul Mustafa bi di ñaan suñu wa taala euh, màggal gi nga xam ne moom la ñu dëdmal di 18 safar yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin waaye itam di ñaanal jàmm te ko sàkku ci yéen di jox dig daje beneen jotaay yeneen i invité wasalaamu aleykum taala wa هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر سلام